ba ministre bi ñëw fi tey ñu ngi koy nuyu di ko sargal ah li mu ñëw sees fii nag lu jar sees ndax ko defar jullit bu ne ah kar yi nag fi ko ko yóbbu àggoon foofu fi ñu ko yóbbu seeraay bi fi ñu ko yóbbu àggut foofu kanaa nga ñëw indi cent mille yaa nga waxaale kar deux cent wala nga ñëw indi kar indi cinquante mille yaa nga waxaale kar buy jar cent mille da ngay wax seer na waane kar yi seeru goñu de eh, loolu nawet bi commencement nawet bi rek moo leen ko def ak coono oto yi nekk ci oto fan juróom benn fan dañuy lof ci nord bu garaw lañ jógee ndoko ak kura mom kawna na manqué tuuti rek wante takku takku ko bari sécurité moom masallah ñu ngi koy commencé am wa fi mom musuñ am problème sécurité fi client ñu ngi ñew wante ñu ngi par ben par ñaar suguñ bari kar sengan du reuy wante boy indee 80000 mille 90 da nga am kar bo mën tabaski di rafetlu li nga xam fekk nañ ko fi mais di sante yalla également lutax lolu daw Dans la région de Thiès nous avons 58 000 têtes tay tay ci tay man naa 120 000 têtes à J-11 comme La situation est très différente. nag différence plus de 60 000 têtes dans la région Nous avons fait bu que tendance de su continuer à faire des choses. dana am ba mais du caagin également mu tere conseiller consommateurs parce que nee naa période Covid 19 la ñu nekk am na lu bari gënul ci période bi ni ñu tàncaloo nii wax dëgg fi y a un minimum de distance à respecter moo aussi beaucoup à deux jours de la tabaski consommateurs yëpp di fa dajaloo suñ fa dajaloo yàlla xam ku koy indi foofu su ko kenn jotee mën naa te kenn bëggul à deux jours de la tabaski nga jëm ci fi am yenn feebar yi non seulement yow dañ lay quarantaine mais fi famille yëpp su répé duñ génn kon yàlla nañ ci yàlla musa ci wàllu prix yi dina jafe ñun ñu intervenir lu tax dama ne ñun jënduñu jaayuñu li ñuy def moom yombalal ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay ngir ñi jënd suñ ñëwee fekk ko d'abord sur place suñ ko fekkee sur place nag am na ni ñu naan euh, la loi du marché mooy que li ñëw ci xar su baree ba ëpp li soxla xar c'est tout à fait normal que prix yi dañu wàcc parce que kenn kon day bëgg jaay dem yoonam li ñu indi ci xar su su yeesee li nga xam ne moo soxla xëccoo da ci am kon c'est tout normal prix yi day yokk parce que kenn ku ne day bëgg am xar donc loolu dina jafe ñu intervenir waaye du ñu tere nag ñu waxtaan ak ñiy jaay xar muy. sénégalais yi muy mauritanien yi muy malien muy nigérien ak kum ci man di doon ñu ñaan leen yermandé touti jëm ci consommateur président de la république dafa joxe instruction yu ferme bu kenn feyeeku ay taxe jëmele ko ci xar wala koy jaay xar ci frontière yi ci yoon yi ak fi nga xam dañ fay jaay xar moy point de vente ngir lan ngir yombalal askanu sénégal ñu mëna jot ci xari parce que suñ frais bu éleveur bi jël frais bu kat xar bi jël ci ki consommé mom la koy tégal ci koku la koy soti kon ngir lolu nak am président joxe ay instruction dañ ñu instruction yoyu duñ ko négocier dañ koy appliquer à la lettre et waxtaan également ak autorité bi nga xamné moy gouverneur région de Thiès et inshallah allah taala dinañ ci jël ay dispositions yu mat pour que loolu noonu nga xam ne président wax na ko ñu respecte ko à la loolu duñ ko négocier.